أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق قمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عنه بالمكتوم برزق البرازق مميد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد سالم التجاني وعلى جميع قلفائه وأهل الطريقة أجمعين بوكي ني بوك دغلو في سان راديو سافينا اف ام 98.2 نيغ لين دي نويو دي لين زياره دي نويو دي زياره مبولم ньо خامني نيغي اندك نون ان شاء الله ربي تي سين ميشن مفتاح الهدى ني باخو كو اند اك تي وقتو ci rajo Safina FM ñu nuyu len ziar len bu baax baax ndokkel len ci bëccëgu àjjuma ji waye ñaan yalla subhanahu wa taala ginaaw bañ ko santee mom jalla jalaluhu wa azza kamal ci ñaan giñ ko ñaanon mu may ñu fekke waat aljuma ji mu may ñu ko ci cioberem mu may ñu ko ci mbaxam waye ñu ngi koy talalat loxo mom mi nga xamni lu mu maye moko sañ mu may ñu fekke aljuma yi di ñew ci barke yonent bi bëccëg bii nga xam ni mooy bëccëgu àjjuma ji lim ciy séddale ci ay ngëneel ak taraanga ci ay xewal ak barke yàlla bu ñu si dara mooy ci barke yonent bi ñu nuyu ziara mboolem koy ànd ak ñun jiital ci nuyo yi ak ziar yi kilifa diine yi ñu nuyu leen ziar leen waaye baalu leen ak waaye ndokkeel leen ci ayit bi nga xam ni moom la génn ñaanal leen yàlla yàlla sàmm leen dëgëral leen jiital ci nuyoo boobu ak ziyaare yooyu yëpp suñu xalif général Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour nuyu ko ziyaar ko ndokkeel ko waaye baal leen àq ñaanal ko yàlla yàlla sàmm ko dëgëral ko ba mboolom li nga xam ne moom lay naal ci réew mi mboolom moo xam ne moom lay naal ci diine ji mboolam mooy ay mébétam ci tariqa bi mboolam ay yéeneem ci ëttu mam Cheikh Seydil Hadj Malick yàlla defal ko lu sut ñortam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu ko ziar ko jaar ci mom nuyu mbolam njabot mam Cheikh Seydil Hadj malik fa tawarakallahu jël nuyu bobu nak ak ziar yoyu ak ndokkel yoyu jox ko suñu buntu ci kër mam Cheikh Seydil Hadj malik di suñu sang di suñu wasila di suñu serigne di Cheikh sayyid Mouhamadul mustafa Sy Al Amin ñaanal ko yàlla mom yàlla nako yàlla dëgëral sam ko ci barke yonent bi nuyu biñu nuyu mbolam njabot mam Cheikh sayyid al haj malik ci loxoom lañ koy tek mu joxol ñuko mbolam njabot mam maam Cheikh Seydi El Hadj Malick jiital ci xalif général de Tijane ñaanal ko yàlla momit nal yi nga xamni wala yan yi nga xamni wala mission bi nga xamni mom la way jur tedd wa bayiko ak mom mawlaye serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mu nek ci di ci nab nabi yàlla yàlla dolli ko ci. kattan dolli ko ci sutura dolli ko ci teraanga waaye dolli ko ci ay ndam parce que bokk na ci ndamu njaboot mission bu woyu jur wi defoon benn nga góorgóorlu ba fukkal ko parce que li fi maam Serigne Babacar si bàyyi woon ci mission muy xam ci volet yi nga xam ni moom la yenu moom Serigne Babacar si di seqoon ko ak njaboot gi di njabootu mam Cheikh Seydil Hadji Malick seqoon ko ak njaboot gi mooy taalibe yi di njabootu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick koon ko ak dëkk gi di ña nga xam ne ñoo dëkkee Tiwaawan ak la ko wër moom mu bàyyi koog Mawlaay Sëriñ Abdoul Aziz Sy Al mu nekk ci moom it di nab nabi yal na yàlla dolli ko ci ay ndam gis nañ taxawaayam ci suukar koor yi nga xam ne moom la ñu génn ak yim ci def yëpp yal na yàlla taxawu ko ak mboolem njaboot fa tabaarakallahu nuyu suñu wayjur suñu soppe suñu sëriñ suñu kilifa di Thierno Hamidou Yoroban moom it ñu ñaanal ko yàlla ñetti yi nga xam ni mooy yitteem yàlla dolli ko ci ay ndam bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël nuyoo bi nga xam ni moom la ñuy nuyu suñu wayjur suñu maam suñu sëriñ moom mi nga xam ne moom la ñuy xoolee maam Cheikh Omar Foutiyou Tall nga xam ni saa su nekk mani ku fi tàkkale ak lu taal ba jëm kaw jëm kaw safara sa nga taalee yaa ngi ko jëlee ci moom ëttu maam Cheikh Omar kon fa tabarakallahu Thierno Hamidou di suñu waajur ñu nuyu ko ziar ko jox ko nuyoo Thierno Mouhamadou Bachir mi nga xam ne moom moo fi maam Cheikh Omar ñaanal ko yàlla yàlla dolli ay wéram dolli kattanam dolli ko sutura ba mbolam ay mbébatam ak ay yéeneem ci njabot gi mbolam ay mbébatam ci réew mi yàlla defal ko lu sun njortam ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuy sayda ñu ma ba suñu directrice nga xamni dafa xeye xulo ñu ko nuyu diko ko ziara di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yalla yàlla doli ko tawfiq doli ko taysir ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbolam personnelu Safina nuyu nak ziara ndokkeel sama serigne sama patron sama soppi sama oustaz sama sëriñ sama mag moom mi nga xam ne moom laay déglu de mooy oustaz Pa Maxtaar mu ñaanal ko yàlla moom it yàlla na ko yàlla dolli sutura ci barki yonent bi sallallahu oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax di la ndokkeel ci julli gi ñu jóge di nuyu techniciens yi yëpp di baalu àq nag mboolem auditeur ak auditrice ak foo mën a nekk nuyu waa Miftaahul Huda jiital si xaaj Mouhamed Sall soxna mi Fejoor waaye soxna Bala mu yobale mbolam wa daara ji haj jibisi haj demba waye haj dawda njaay bu mawlaaye serigne abdul aziz si al amin moom ñu nuyu ko ziar ko ak mbolam wa daara ñom ñoom soxna nday fatture ak mbolam wa daara ji rek nuyu mbolam daara yi rimbax jël nuyu ba teg ci loxo haj xaaj al mustafa silla mom mo nuyu ko ziar ko bu baax baax ñaanal ko yàlla mom sama mag la waye sama professeur la sama professeur la ndax <laughs> may wax ni 88 jàpp 89 jàpp 86 88 <laughs> bari na tàggat gu nga xam ne tàggatu nañ ko ci mission bi ci xadara bi te moom mii bokk na si ñi nga xam ne ñoo ñu si tàggat yal na yàlla dëgëral ko xaaj Moustapha jaare ci yow nuyu mboolam waa daaray Rimba ziar leen bu baax a baax bal leen ak si julli gi ndokkeel leen waaye ñaan leen yàlla lépp loo nga xam ni yiw la woon ak taraanga gu ñu yaakaaroon ci koor gi yàlla bu ñu si dara mooy ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu non la ñuy jaare rek nuy mbolam ko xamni xam ànd ak ñun sa su nek wa sop say Cheikh Ahmed Tijani nga xamni ni Adja Silla suñu yaayu bop moom moko jité ñomit ñu nuyu len ziar len ndokkeel len ndax gis nañ sen taxaway ci tafsir bi ci collecteur bi nga xamni mom la oustad mahtar Makhtar don tejé tafsirul Quran bi sen taxaway rafa na macha allah yal na yàlla fay len yiw ci barki yonent bi non lañuy ñuy jaare saa su nek delisu wat ci daara ji ak sen émission Miftahoul huda waaye ànd sek imam oustaz alhaj Pape Makhtar comme niñ ko baxo def waxtane genn nañ ci ko gi dañoo ñaanoon yàlla biñ ci door ñu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla katanal ba ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim eggalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla defal nañu ko donte defulu ko ñëpp it waaye ñun ñu ko defar war nañoo sant yàlla bàyyiwaat xel ci def bi ñu ko yàlla defal ndax bari na ñoo xam ne bi ñuy waaja um koor di séntu ci la leen ci lañ dem barsàq génn àdduna ñun yàlla bàyyi ñu fi may ñu kàttan ba ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim bari na ñoo xam ni commencé nañu um ko waaye jeexaluñu ko. ñun yàlla kàttanal ñu ba ñu jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin loolu sant yàlla la loolu nag yàlla nañu yàlla dajale mboolam gëneel gu nekk ci biir mu war ñoo servir leçon ba nga xam ni daañu bàyyi xel li nga xam ne moo nekk suñu kanam ndax li ci nekk ci ak yiw ak naataange te yàlla xam nga ni dara du force ci moom ci bàyyi la fi ak mu jël la fi moom lay neex rek ndax ñi dem yàlla jël leen daf leen jël ci coobareem amuñu lu ñuy def loo nga xam ne dañ naan lii moo tax yàlla jël leen wala ñi si des lii moo tax yàlla bàyyi leen fi déedéet moom lay xor rek waxtu wi jot mu ni sama jam diw waxtu wi jot na ay heure am jeex na ay noyem jeex na na dellu si ñu delluwaat ci moom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon war nañoo bàyyi comme ñëw nañ ba pare nag li jaadu fi ñu toll mooy ñu préparer suñu retour parce que aller bi soo xasee ba egsi rek jàppal ni retour jot na retour boobu nag naka lañ koy préparer nan la ñuy fexe ba suñuy retourner ndax ku ñu yónni mission ngay dem dafa am cahier de charge bu ñuy jël teg ko ci sa loxo muy mission ba nga xam dañ naan la fiñ la yóbbu kat muy àdduna ci kaw suuf yàlla ni yow yaa fay sama kuutaay waaye jàppal ni uutu ba nga fa uutu nag waxuma la nga def la la neex dama laa jox feuille de route jox la kay de charge ñu la lii laa bëgg ko fa def lii laa bëgg nga doxalal ma ko ci jamono ja nga jëm maa ngi xippi samay bët nag di xool moo tax wa ma xalaqtu l insa wal jinna illa li yaabuduni yow mi jëm ci suuf ma la fay def nga nekk sama uutaay amul benn mission bu ma sant loolu nga dem pour jàmm jaamu gi may jaamu nag yenn saa yi maam ay pakk-pakk waaye dinaa indi weer wu mel ni weeru koor pour nga profitoo ci defaraat sa dund parce que nit yenn saa yi mu dem ba fàtte mission bi ko indi kaw suuf yàlla indiwaat benn weer muy conseil waaye indiwaat benn weer pour dimbali ko indiwaat benn weer pour dellawaat ko ci boroomam indiwaat ko benn weer ngir lan ngir wax ko ni ko bàyyil xelkat man mi la fi indi ñu fii laa bëgg nga jaar fa kon góor góorgóorlul ci moment bii nga xam ne moom laa la indil pour nga profité ci daal di indi weeru koor bëri na ko nga xam ni mooy yàlla wala bàkkaar wala ak yi mu amee nit ñi xëy na dafa dafa lekk ba regg di cëppi-cëppi ndax am na loo xam ne soo xiifee doo ko tal mu ne xaaral ma préfitoo ci parce que dafa am loo nga xam ni moom la ñuy yaree nit cëppi-cëppi àdduna ak bànneexu àdduna dafa sa am loo nga xam ne lenn rek moo koy moo koy jox doomu aadama muy bakkanam te lenn rek mooy moo bokk ci li nga xam ne mooy yar bakkan mooy mu fexe mu xiifal ko moo tax mu indi koor ngir lan ngir préparé waat sa dund ngir lan ngir nga am force ngir jël beneen élan élan boobu nag ngay jëlaat nga génn ci koor gi élan boobu ngay jëlaat ngir lan ngir li nekk ci sa kanam ginnaaw bañ ci génnee nga préparé ko loolu nag moom lañu ñu génn yàlla nañu yàlla dajaleeg mbooloom ay ngëneelam yàlla nañu dajaleek mbooloom xéewal ak taraanga yoo xam ne moom lañ ci màng te may ñu suñ koy suy dellu siwaat mu fekk ñu si ndax ñim fi ñi ko ñi ko commencé te jeexaluñ ko du seen coobare bopp te jamono lañ nag boo xam ni kenn ku ci nekk war nga waajal sa bopp gàdduwaat sa saak ndax heure retour la ginnaaw bi ale amee ba pare nag retour moo ci des te xamoo kañ la xamoo fan la xamoo nan la kon teela la gàddu sa saak ba orel bi su taxawee mu bañ nga bañ ne ko xaaral ma ñëw ndokkeel nañ ñëpp ci événement yi nga xam ni moom lañ jóge yëpp dañuy bàyyi ak suñu sang suñu soppe suñu sëriñ suñu ustaaz mu nuyoo ak auditeurs ak auditrices ñu doog a dellusiwaat nag ci waxtaan wi waaye doog a dellusiwaat ci thèmes yi nga xam ne incha allahu rabbi faste nañ ko waxtaan ak ustaaz incha allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله تاماتي من شر ما قلق بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسن سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سان قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا <laughs> بحول الله لا يقدر علينا وله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين ورد الله الخالد عن شيخ الشيوخ برزق البرازق تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجه وسلك طريقه القويم إلى يوم الدين ورضا الله القالد عن سليل أثمان سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وعن جميع أبنائه وأصباته وأحبابه رضا لا اقتبعده بعده أبدا وأيد الله ونصر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 أيها المستمعون الكرام والمستمعات في إذاعة السفينة FM 98.2 نسلمكم في هذه اليوم المبارك ونهنئكم فيه ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حاج منصور جناب نسانتي يلا چانتو يلوك جمم جتد جمعك جا جلیچ سنگو ادناك الاخرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نان نعم، يالا سوني بوروم مودولي رانغا اي غراتا كي مقام سوني وسيله سوني ديغنت اك يوننتي بي دي مولانا سيدي الشيخ احمد التيجاني الشريف رضي الله تعالى عنه نان يعني يالا مو كاتنال مبولم خلفاء امي مولانا الشيخ الحاج عمر مولانا سيد الحاج مالك اك مبولم خلفاء امي يب نان يعني يالا سوني كليف ديني يالا ماي لين وير ماي نوكو امين جار ماي لين فان وغودو ماي نوكو ماي كو سوني ويجور اك مبولم جوليت ñaan yàlla itam yàlla defal ñu jàmm ju sax rawatina ci suñu dëkk bu tedd ba li di Quds di Palestine yàlla may ñu fa jàmm ak ci réew àdduna bi yëpp Mansour ñu ngi nuyu mboolem auditeur ak auditrice bi ñuy déglu di leen ziyaar di leen baalu xaq di leen baalu xaq ci koor gi di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di ñaan yitam yàlla may ñu wér ak kattan ba ñu fekkee waat déwén woor ko ba mu jeex bañ ci am benn ngànt amiin yaa rabbal aalamiin ñu ngi sant yàlla ci may gim ñu may ñu fekke alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci may gim ñu may ñu fekke alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci may gim ñu may ñu fekke ba weesu alhamdulilah di ko ñaanaat yàlla ñu mayaat yeneen koor allahuma amin ci barke yonent bi mu ànd ak wér amin yaa rabbal aalamiin ànd ak fatxu ci wàllu yàlla amin yaa rabbal aalamiin ànd ak jege suñ borom amin yaa rabbal aalamiin ànd ak bëgg sayduna muhammad amin ànd ak bëgg alquran amin yaa rabbal aalamiin ànd ak bëgg gaa yu baax yëpp amin yaa rabbal aalamiin waaye ànd ak bëgg jullit yëpp amiin yaa rabbal aalamiin bëgg luy jaamu yàlla. amiin yaa ci kaw suuf. yàlla yàlla defal ko. amiin yaa rabbal aalamiin Oustaz Mansour. jërëjëf fadilatu imaam Oustaz Alhaji Pape yal na yàlla nangu ñaan yëpp. allahumma amiin ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Oustaz mm-hmm. xam nga ni émission bi moom day ànd ak actualité saa su nekk. tey ñuy dellusiwaat yaa ko wax léegi yaa leen tudd muy suñuy bokk jullit. Mm-hmm. ya nga xam ne tey. Mm-hmm. ña fa fële ca Palestine. nga xam ni ña nga fa euh, tey nekk ci ay xat-xat waaye nekk ci ay nattu waaye nekk ci ay coono muy góor muy jigéen tey ku nekk xam na ni fii Palestine toll nga xam ni fa xot si nekk oustaz euh, ñëpp bët yépp wala ku yàlla may xel xel bu rafet ak xol yaa ngi leen di ñeewante yaa ngi leen di bàyyi àq di bàyyi xel ba barki dem rek gis nañ la xalif général de Tijane muy wàññe solidarité am te ànd ak ñoom ci naqar ak mettit ba nga xam ne moom moo fa nekk yabal rakkam euh, di xaaji Mouhamed euh, Serigne Mouhamed Mansour Dabba bu moom maam Abdoul Aziz maam Abdoul Aziz mu dem représenté ko fa wane ko wane ni kat ñun julit ñi ñun njaboot gi ñi nga ak ñoom di leen soutenir waaye di leen ñaanal amna lo loo ñom ñoko euh, Erdogan le président turc taxaway bi mu def en mhm. tant que réewu pour engager pour dugg ci xex bi pour jël ay fa ñu taxaw dëkk bobu nga xamni ben dëkk ci yi mhm. lan première réaction mhm. bi nga euh, actualité bi ak en tant que nitu waaw Mansour man sama premier réaction mooy lan jël xadis yonent bi rek teg sama kanam mooy li yonent bi waxoon ni man raa minkum munkaran fal yuqayirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi xalbihi wa dalika adaafu l imani yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa waxoon ni képp koo xam ni gis nga lu jaaduwul képp ku gis lu jaaduwul képp koo xam ni gis nga lu jaaduwul yonent alayhi salaatu wassalaam nee na na nga ko dindi na ko dindi na nga ko dindi mhm. tekk di déglu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi ne na ko dindi ci sa loxo xam nga tey Palestine la fa xew Palestine waaw la fa xew muy waa isra Israël di yahud yooyu nga xam ne lu yàlla bind ñu ci gën a bon yahud lépp lu yàlla bind ci kaw suuf yahud moo ci gën a bon ñoo ci gën a bon ñoo ci gën a bon yàllaa ko waxal boppam ci làmmiñu boppam ashaddu nnaasi adawatan mhm. lilladina amanu lyahud lépp lu yàlla binda oustaz Mansour labbayk yahud juif moo ci yées mhm. mbonam gi nag li muy bon bon bon mhm. fan mbon gi di gën njëbure mooy ci kaw ay jullit ci kaw ay jullit ay jullit kon gis naa ni ñoom ña ngay dal ci kaw Palestine yenent bi nee na woon ku gis lu jaaduwul mhm. soo ko mënee dindi ci sa làmmiñ yenent bi ne na nga ko dindi ci sa làmmiñ mhm. ci sa loxo mhm. lan mooy dindi ci sa loxo mooy li président turki bi def kooku moom moo mën boobu président Erdogan waaw turki mooy tey ñee waa waa Israël ay soldaar la ñuy songe waa Palestine ak i ngànnaay loola leen di songe moom am nay soldaar mhm. am nay ngànnaay am nay oto mhm. mu yabal ay soldaaram ak i aki ak i otoom mhm. mooy fal yuxayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi comme ñoom doole la utilise Mhm. waa Palestine ci kaw Israël. Mhm. dama ne xoolam Mansour réewu jullit ñëpp ñoo waroon takkatoo def benn say dal ci seen kaw. xam nga ñu ngi xalaat naan ay dafa am ñu nekk ci seen gannaaw américain yeeg nangam nangam ak yooyu yëpp buñ ko xalaat. buñ ko xalaat. déedéet jullit wa mais oustaz si gars yi jàng nañ xalis bi nga wax léegi. ñëpp ko jàng ku ko jàngul it dégg nga ko. waa mais oustaz naka la ñuy jàngee xadis bu mel nii. ñu dëgg ñu ñu jàng yonente bi wax ñu julli julli tay mbokkam mbokkam. ñu jàng yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni sa mbokk na nga ko dimbale su tooñee ak suñ ko tooñee. ñun ñëpp ñu yàcc ni yasar. tey dama lay jox benn misaal. bu doon Palestine mooy dal ci kaw Israël. réew yu gëmul yàlla yëpp jóg nañ. jóg nañu ñëppay jóg. taxaw ci gannaaw Israël bootu ci ginnaawam. jox ko ay soldaar jox ko ay ngànnaay jox ko dund pour mu dal ci kaw Palestine tey nag réew yi waroon gën a taxaw ñoo war ni gën a yàcc Arabie Saoudite bën réew moo ko waroon njëkk a taxaw ban réew nga xam ne bu ñu wax ne tey kapitaalu jullit ñi dañ naan mooy Arabie Saoudite mhm. arabi saudi fofu moy capital jullit parce que fala sangu aduna ak àllaaxira tëdd di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam fele néeg bi gën tedd ci kaw suuf nek gën tedd ci li yàlla bind gannaaw sayyidul wujud fala nek moy ka'batul musharraf hmm sen teranga yi len yàlla jox yeb kaaba ge len ko jox ak diine l'islam ak sayyiduna muhammad te du ñett benn la te du ñett benn la kaaba gi diine wu wujud du ñett benn la mhm. ay milliards di fi dugg te l'islam moo leen ko terale mhm. nit ñëpp di xëntewoo di fa dem ku fa demoon xëntewoo dellu fa ku fa jóge balaa muy am bis bi dellu si nga nammaat fa bëgg fa dem mhm. te loolu yëpp yàlla defal leen ko soo fay dem alal joo am nga yóbbu ko tuur ko bàyyi ko fa ñoom tey ñuy toroxal réew jullit ñu ni yàcc te allahu ñu ni yàcc te wax nga léegi xadis bi yonent bi moo waxoon ni unzur axaaka zaliman aw mazluman sa mbokk su tooñee dimbali ko suñ ko tooñee dimbali ko suñ ko tooñee taxawu ko mhm. jullit ñëpp ñu ñu yàcc mhm. kon tey li waroon réewu jullit ñépp ba ci Sénégal gii senegal mhm. gii suñu président war naa taxaw wax war naa yónni ay soldaar waxuma da ngay dugal sa bopp ci ay guerre lan mooy ah kon Mansour ñun bu ñu fekkee woon yonent bi ba muy guerre kon duñ dem. mais oustaz da ngay tëkkale ñooy ñaar yooyu. benn la benn la bu ñu fekke woon yonent ba muy xeex duñ dem parce que yonent bi bi muy commencé di xeex li mu yor ci ay soldaar barewul li mu am ci ngànnaay barewul li mu am ci waruwaay barewul. waaye teewul jullit ñi ñëw dër taxaw ci kanamu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko doo dem yow kese doo dem yow kese ñun dañuy ànd ak yow ci guerre bi te bu jullit ñëpp toogoon sayyiduna Muhammad dana dem moom kese te dana am ndam te preuve bi mooy xare badar preuve bi mooy xare badar xare badar biñ fi waxtaane bu yàggul biñ fi waxtaane bu yàggul mhm. juróomi junniy malayka la ko yàlla jox ni ko maa la ko jàppalee ci xeex bi xam naa ni pas-pas moo leen indi waaye du mbooloo xam naa ni gëmma moo leen indi waaye du ay ngànnaay xam naa ni bëgg yëkkati diine lislaam moo leen indi waaye du ay waruwaay yu mag kon man mi am ngànnaay am kàttan am waruwaay am soldaar yu ngeen gisul yu mën a mëdd àdduna ci benn waxtu wala benn segond te ma te man ma tax ngeen jóg ak pas-pas bi song ngir sama jëmm kaay xaar leen ma ñëw daanal leen. yàlla ñëw daanal leen. Mm-hmm. kon tey réewu jullit ñëpp war a dem taxaw ci gannaaw Palestine kilifa yi nag kilifa yi diine yi li nu man Mansour def nañ ko. li ñu suñ mu Muntaxa Mbàkke mu baax ma la mën def na ko def na déclaration wax ba daanaka ba muy wax boo ko xoolee kàddu gi bu continuer woon rangooñam day tuuru. Mm-hmm. Serigne Mansour eh, eh, Serigne Mansour. génn na bërki dem wax ci turu xalif général Tijane. Mhm. loolu la mën te wax ja xam nga ni la ko laytaay moo ëpp doole mooy ñaan ya mooy ñaan ya ñaan ya ko laytaay ci biir moo ëpp doole kon kilifa diine yi ñoom lanu war a def def nañ ko wàcc nañu wàcceet seen jaan wàcc na seen jaan wàcc na ñaan nanu yëkkati nanu seen kàddu mhm. def ay déclaration ci télévision yi <laughs> gis naa Serigne Mansour ak Serigne Pape Makhtar Kébé ak mbay loo kenn ku nekk déclaration bi mu def dégg naa ko. <laughs> Mhm. Serigne Mountakha déclaration bi mu def dégg naa ko damay wax ni ñaari kilifa diine yooyu dong buñ si yemoon ñu yóbbaale ñëpp ndax Sénégal benn bopp la ndax li leen metti rek moo metti kër yëpp. <laughs> diine ji benn la kon li des mooy ñu yàlla dénk armée bi. dama wax ne fal yughayyiru bi yadihi. moom moom nga gisee kooku président yi ñoo ko moom yi ko jullit kon kon fi ñu toll li nga wax ni bépp réewu jullit. war nga jóg heure waroon naa fekk. nga génne sa armée génnee say ngànnaay génnee sa ndimbal mu jëm Palestine. kilifa diine yi tamit moom waxaalewu ma leen kenn ku nekk la nga mën def nga ko ñoom jumaa korite gi paase. du ma jumaa yëpp de waaye jumaa yu bari ci Sénégal. Mhm. seen xutba yañ doon def. ñu ko def ci Palestine ak Israël fa lañ ko def boole ci ak seen ay ñaan yañ ca booleel loolu lañ man def nañ ko kon fa ñu xayiru bi yëddihi buura ko moom fa in lam yastati fa bi lisaanihi mooy borom xam-xam yi ñooy kilifa diine yi ñoo moom boobu ñoo moom ñoo moom bi deuxième bi ñoo moom deuxième bi fa in lam yastati fa bi xalbihi ku mel ni Pape Makhtar Sylla moo moom boobu doog yoro doole. muy ben muy ben ñaarel bi amulo xam-xam. mooy ñett. te kenn deglu wula tamit. yow ya mom so amé xam-xam sax nit ñi dégluwuñ la. xol. ya mom xol bi. nga yéene ci sa xol li dey suma amone amoon dana ci def. suma amone xam-xam dana ci wax. su ma nekkoon ku mën jug def ci danaa ci def ma ñi wane nañu fan yi benn vidéo Cheikh Ibrahima Niass Baye mhm. radiallahu taala an benn ujoom ak photom mhm. mu dem ba baytul muqaddas mhm. taxaw ca kanamu jumaa ja Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu ñaan fa ñaan nga ñaan yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga not Palestine ci kaw Israël yàlla nga yëkkati diine lislaam yàlla nga màbbal kéeféer yàlla nga màbbal yahuud yii nga xam ne ñooy dal ci kaw Palestine Palestine kon nag tey ñun ñëpp war a jóg ku jullit war nga jóg parce que nag tey ñaareelu barab ok loolu laa doon bëgg a laaj bi gën a tedd ban ban taxawaay waaw la Palestine am ci réewu jullit ñi ba ba mu wa ba mu war a jaral noonu lislaam yi ñu jóg attaqué ko ak ñun lan moo war a tax ñun ñu juk défendre len yàlla bi mu tuddee masjidul haram. jàkka joji la ci tek tegu ci sax masjidul rasul. han subhaana alladi asra. bi abdihi laylan min al masjidil haram. kaaba gaa ngoog de. fa la départ mu ni ilal masjidil aqsa mu quds. moy ñaarelu barab. bi gën a tëdd ci barab yi gannaaw màkk allahu akbar kon taxawaay boobu la am takk gis nga gis nga foofu ñuy bombardé noonu jàkka jooju nga gis noonu waaau lu ma ñeenti junni yonent yi foofu ñu suul ci xorum boobu ci suuf si ñeenti junni junni yonent buntu jàkka jooju nga gis yonent yu bëri takk nañ fa seen fas takk nañ fa seen giléem takk nañ fa seen mbaam takk nañ fa seeni alburaax سيدنا محمد صلى الله, عليه وسلم كرب بمي في إسراء والمعراج تبنت جاك جوج بمو نيوي فلا يو براخ بمو يو بمو ورون ففلك يو بمو يو يدوكو تي جاك جي جيت يوننت يب يالا دكال لين مو جيت لين أستاذ في يفري دي بمبار دي تاي فوفل يوننت بي جيت وون يوننت جلد دي سلام صلوات الله وسلامه عليه وعليهم جميعاً ففلان جيتو وتخدمت للصلاة فصلوا كلهم مختد وأنت الإمام فيني بمبرتي ففلا أنا تقص فوف تمت بيننتي بسلم الجن وحنت يننتي فوف لينتي بدباري خطي أسماني جروم نيار te te wuy ji yàlla subhanahu wuy suñu boroom ca fa neex yàlla kon barab bu tedd la barab bu sell la kon julli ñëpp war nañoo àndandoo tafu ci ginnaaw Palestine xeex Israël ñi nga xam ne ñooy ay njiitu réew dañu xam ne ah am nañ ay responsabilité yu mag de yoo xam ne ëllëg seen borom dana leen ko laaj ngay jullit ñuy bombarde réewu jullit man ortogane xaw ma la tudd. wallaay. bëgg naa ko de yal na yàlla dëgëral ko. bii mooy deuxième acte yi mu def gis nga francais yi bi ñu xaw ma caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. ah ñu am ñu faray président yi jóge fii di dem naan dañuy jaale jeeg dañ leen di masawu. moom dafa booy côté. bépp produit boo xam ne France la jóge nañ ko génnee ci boutique yi ak magasin yi bu ko kenn jëndati dàq seen ambassadeur. woo ambassadeur mu ñëw ñibbis ba boole leen côté ndax diine l'islam kii bu nee mën jullit laa dañ koy gëm kii su nee mën jullit laa dañ koy gëm su dee bëgg na yonent bi dañ koy gëm su dee bëgg na alquran dañ koy gëm su dee ay jullit ni moom dañ koy gëm su ne su ne li naqari jullit ñi wala li leen metti metti na ma dañ koy gëm moom ortogan mais président bu toog ni yàcc ni yasax nangu woon sax def déclaration te bu dara dalee français yi wala américain yi nga jël avion dem fa. oustaz est-ce que suñu njiit dañ leen xaar si acte bu mel nii ci déclaration. si war nañ ko def déclaration kese. wa wa mais déclaration ku deful déclaration doo doo doo doo armée bi balaa muy dem da nga def déclaration wax ak réew mi li tax armée bi di bëgg a dem. oustaz soo xam nga. la nga wax léegi ni am na loo xam ne boroom kattan moo ko moom. ñoom ñoo am kattan ñoo ko ñoom ñoo am kattan. Mm-hmm. mais est-ce que dinañ dinañ dinañ cautionné benn président bu toog ci buroom bind benn lettre def ni def naa déclaration rek yam ki ba pare ni jullit laa loolu est-ce que dinañ war nañ ko mën a cautionné. Mansour Mansour Ortogan balaa muy génnee armée bi mu dem. Uh-huh. dafa njëkk def déclaration. dafa génn. waaw wax ni gars yi bu ñu arrêté moom day génnee armée mu dem. Uh-huh. président bu nekk war nga mën def noonu xanaa loo loo loo niiwal niiwal ak loo bàyyi bàyyi l'islam te réew yu bëri réew yu jullit yi surtout sous raison bi ñun wër ak yeneen réew yi Égypte lu gàtt gàtt yooyu na fa ay ndimbal. Mhm. Égypte gis naa seeni i ndimbal. yónnee nañ fa ay ndimbal. yaa may dégg ci yónnee ndimbal avant muy di di xëy na yónnee tey ndimbal beneen yoon xëy na mën na def beneen beneen réaction mais lu tax depuis ñun ñu judd man ba ma juddoo ba léegi laa dégg. Israël ak Palestine ñooy rey rek. te gars yi yónnee nañ fa ay soldats ci ay réew ñu rek la ci ay problème yu dul jeex. du xaaj barki dem gàmbi gi gàmbi gi Yaya Jammeh biñ ko gañee ay élection rayul kenn Yaya nii rayul kenn de. ñu jël suñu soldats sëpp yóbbu fa. dañoo jël ay soldats yóbbu fa réew pour pour aar pour pour pour ni pour na dem ci jàmm na Yaya génn réew rayul kenn ah. dañ ko gañe mu du du. du jóge ci réew ma yaayaa jàmme l'islam bi moo leen ñorul te la muy défendre l'islam bi ko ëpp doole fuuf fuuf boo jógee fii dem jaale ji France kon war ngaa jógee fii jaale ji Palestine <laughs> lu tax allahu akbar lu tax yow tam Mansour kulil xaq walaw ala nafsik nit wax dëgg te yàlla tax ku yàlla tax di def Palestine nga ne ay ca président bu nekk nu jóg wane ni lii neexuma waaye toog rek ñu lay noote noote jullit ñi lu neex waaye wax ci kaw jullit ñi léegi wax nañoo wax ba yàgg ñu xam ne léegi wax bi moom comme jullit ñi euh, boo waxee tamit du du du du am benn jeexital léegi ñoom ñoom nañ jëf oustaz te buñ jógee ci Palestine gis nga màkkaa ngi nii di noppi nga noppi rek bu yi paree ci Palestine nga toog rek nañ toog rek xam nga fee mooy ñaareelu réew bi gën a tedd ci réew mi. bu ñu toogee ba ñu masaakara ka ba pare dañuy jublu feneen fi. màkk gii lañuy jublu si maa la ko wax. kenn dootul aji. ma màkk gi xaw ma daañu aji waaye fa la ñuy jublu si. nañu yàcc rek te yàlla loo ñu doo ko seet du ko seetaan Mansour seetaan na lu ko raw. mais oustaz nag loolu loolu loolu ma jaaxal oustaz yi wax nga la fa tëdd ci ay saxa ci ay yonent. yonent. صلوات الله وسلامه عليهم استاذ واخنا لمي ريبريزونتي با فره يالا سيطان ني ني مساكر دوما ادمي ني استاذ لو تخ يالا منصور ادنا سخلوكو يالا لا ادنا سخلو المنصور يالا الاخره كو سخل كوم الاخره كو سخل نك ادنا بي لو في خيو رك ميغي توك موم دي نيو خاري الاخره لول لا ميغي توك دي نيو خاري الاخره واي دا ريو جولي نجوك نك داف تخواي منصور oustaz di réewu jullit ñi ak président yi ñun suñ bopp en tant que ay citoyen ordinaire ay nit ñoo nga xam ne xëy na amuñu kàddu nit ñi dégluwuñ ñu ay jullit lañu wóor nañu ni lii metti na suñu xol est-ce que ci lañu ñu war a yem nañ dajaloo ci jàkk yi imaam bu xutba na ci def xutba suy tëj na ca def ñaan kuy bayaan na ca bayaan kuy conférence na ca wax kuy gàmm na ca wax kuy def émission ci rajo na ca wax ñu xam ne lii ñor na la. kon oustaz ñi wootee manifestation tey. waaw pour lan pour wan adduna bi yëpp ñun waa ñun jullitu Sénégal d'accorduñ ci kon euh, taxawaay la war a doon. bu baax ñëpp ci war a dem ñëpp a war a dem ci manifestation ba parce que ñun foofu lañu toll ñëpp a war a génn àndandoo dem ba pare nag waruñu si yem. waruñu si yem. déedéet def ay ñaan def lépp. ñaani buñ ko xeeb surtout ma sëriñ daara yi ñaani buñ ko xeeb de. buñ xeeb ñaan yi gis nga li fexé won fi rek ci Sénégal laa lay wax. waxon na la ko. dafa am ben jamono ñu toroxal fi ben serigne daara yagul serigne daara yëpp jóg. daf ñaan ay kamil fi la la waxon fi nga tok fi la la ko waxon ci émission bi fi man la Mansour. serigne daara yi sen kamil yi ñu jàng ak sen alam tarakay fay yi ak sen dogu yi ñu def ni jëmele ko ci ñi di toroxal serigne daara yi du jik réewum Sénégal. fi laa la ko wax. Mhm. Mansour. en hakay bo faté nga wax technicien mu dellu si la élément bi. effectivement ak jour émission bi ñëw na Oustaz. matul deux mois. réew mi commencé tak Sénégal gi mhm. bu Serigne ju Serigne si ñoo. ñoo ñoo mujj intervenir. pour mu fay. Mhm. lolu buñ ko xeebaat ca ci Israël Serigne daara yépp nañ tok seen daara ñaanal yalla yàlla wàccee ci ñoom lu leen doy ba dootuñu tal Palestine da ko ñëpp ñaan ñaan amul lu mu mënul maas duaa silaaxul muminina ajal sëñ Babacar ni inna duaa mhm. silaaxul muminina ajal bu leen ko xeeb te di soow guddi ya ak bëccëg ya ni ñëpp tàlla seen loxo yàlla ñaan sëriñ daara yi nañ ñaan imaamu jàkk yi nañ ñaan kilifa diine yi nañ ñaan góor ñi nañ ñaan jigéen ñi nañ ñaan suñ defee xadaratul juma ba pare nañ ñaan suñ jàngee xasaayid yi ba pare nañ ñaan laayeen bu ñu zikkaree pare nañu ñaan kenn ku nekk la ngay def boo ko defee ba pare daal tey jullit tallalal yàlla sa loxo nga ñaanal yàlla Palestine mu génn ci buumu njaam gi Israël takk ci seen baat di diri ak di rey ak di noot nu mu leen neexee nañ ko def buñ ko defee léegi ñu génn ci incha allah incha allah léegi allah nañ ko def. suñ ah. defee léegi ñu génn ci. léegi ñu génn ci incha allah kon yow mi may déglu ak foo mën a nekk. ngay imam ngay oustaz ngay sëriñ donte yow ngay benn ndongal daara rek si sa roq nga julli ba pare defal sa fatiha salatul fatiha yéene leen ko say jullit ndax mooy sa contribution ki attul lool nag ci Palestine soo ne dinaa dem jàppale leen munoo waxoo dëgg. ki àttanul julli ba pare def ñaari def def fatiha salaatul fatih wala mu ñaan lu mu mën wala mu ne yàlla sax yal na nga dimbali sama mbokku julli yële di loru ca Palestine ku ko mënul ci ñoom leneen loo wax ni mën nga ko ci yonent bi mën nga ko ci waa kër yonent bi da ngay nax sa bopp nag kon oustaz loolu actualité la boo nga xam ne il faut ñu bàyyi loo xel jullit ñi ñu bañ a nekk fi ñu nekk rek toog ni sama yoon nekku ci ni Palestine lay xewee parce que am na loo xam ne nga naan ah seen réew la ñoom kese la wala dañuy xeex xeexu suuf la ñuy xeex de déedéet Eh, ci kaw lan la lan lay wax ak li nekk ci suuf bokkul daaneel lislaam moo leen tax a jóg eh Mansour mhm. bu dee xeexu suuf lañuy xeex mhm. xeexu suuf waaw la ñuy xeex sax jullit ñi dañ ci war a dugg dañ ci war a dugg dañ ci war a dugg mhm. ci war a dugg bu dee xeexu suuf la ñuy xeex sax dañ ci war a dugg macha allah gis nga bu ñu toogee naan xeexu suuf ba ñoom ñu jël suuf sa xoola Quds masjidul aqsa boobu la gars yi di teg seen loxo maasale ko def ko église allahu wala ñu maasale ko def ko lu kenn xamul te yàlla day toog di seetaan parce que wax naa la yàlla àdduna yi yitteelu ko ki yónni yonentam bàyyi ba ñu rey yonent bi mu toog oh. yonenti yàlla yaxyaa dañ ko rey te moo te moom moo ko yónni daw ba làqatu ci garab ñu boole ko garab nga dog mhm. ah yàlla naan leen yéen ma yónni sama yonent ngeen di rey yonent yi wa taqtuluuna al anbiyaa bi gayri al xaq yéen a ngi rey yonent yi te li ngeen leen di reyee dara du ci dëgg xam nga ki wax loolu mënoon naa faj waaye comme moom fii taxu ko jóg moom mhm. yàlla mhm. àllaaxiraay mbiram Mhm. mu toog rek di xaar ñëpp àllaaxira te yenn saa yi mu bàyyi yi nag ñu leen góorgóorlu leen amul sax werante kon nit ñëpp def taxawaay ci Palestine def taxawaay ci lislaam bi daal digg digg dañoo war a àndaat war a defaat benn say jàppoo jàppalante réew moo xam ni dara dal na ci sa kaw réew yëpp bootu ci sa gannaaw bu dee yaa tooñ ñu delloo si la bu dee da ngaa tooñ ñu jàppale la su dee yaa tooñ ñu delloo la su dee dañ laa tooñ ñu jàppal la taxaw la te ku nekk xam na ñii dañ leen a tooñ yal na yàlla dëgëral leen te lootal leen seytaane lootal leen ñi nga xam ni ñooy noonu l'islam bi ci seen kaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan la bu ko kenn xeeb parce que am na koo xam ne foofu la tool waaye am na koo xam ne fi mu toll du ñaan yal na yàlla defal ñu taw feex oustaz macha allah ci leeral yu am am am solo yooyu oustaz ñu génn nag génn nañ ci koor gi ñu ngi ni di fa tabarakallahu waaye ku nekk ko xool ni ni ni dund bi ni jamono di doxe koor gi la am na leçon yu ñu war a jàngal uh-huh. ginnaaw bañ ko rombee nga xam ne yi fi jaar jaar na fi nit ki nag war a mel ni dafay dundaat dund gu bees ginnaaw bi mu génnee ci koor gi ana ban taxawaay la nit ki war a am moom ci boppam ginnaaw bi mu génnee ci weeru koor ana ban taxawaay la war a am moom ci boppam ci dundin ci jaamu yàlla ci doxalin oustaz. benn taxawaay rek la jullit ñëpp war a am Mansour. muy ban al istimraaru fi taatillahi bada chahri ramadan mooy continuer ci topp yàlla gannaaw bi weeru koor gi jeexee. toujours damay wax Mansour bu koor gi jeexee ma ni kooru farata moo jeex mais koor jeexu. ah kooru farata gi moo jeex. koor jeexu tey ji fi ngay waxee yow am na koo xam dafa woor te fayul bor. Ousseynou li ak malik Faye ak Astou Wade koor gi rek la ñuy woor. bu màggee rek waaw loolu nga yaakaar rek ñooñu ay jàmbaar lan ñooñu toujours ñu ngi ci woor. ñett ñooñu nga wax. toujours ñu ngi ci koor. waaw toujours ñu ngi ci koor koor ya bokkul rek. koor yi ñoo bokkul waaye ñooñu toujours ñu ngi ci woor. toujours ñu ngi ci woor. al istimraaru fi taatillahi baada shahr ramadana mooy continuer. ci woor weeru koor gannaaw woor ci sax ci sax ci topp yàlla gannaaw weeru koor xam nga Mansour tey ku doon def stage ku doon def stage stage ci dara tey am na benn waaye bu ñëw fii ci rajo bi mhm. ni dafa bëgg a def stage pour nekk technicien mhm. sàmba téye ko un an mhm. di ko defal stage ba xëy jàpp ci loxoom. Mhm. yóbbu ko ba ci directrice bi. Mhm. ni ko kii dama ko bëgg a defal attestation xaw ma da nangam sangam. Mhm. wane ni kii li ma ko doon jàngal. mën na ko mokk na. léegi kooku Samba su ko joxee technique bi dem yoonam est a régler. ah kay téye woon technique bi avant sàmba di ñëw. mamma mamma ku ko jàngal. sàmba léegi léegi Umar ñëw nekk xale bu ndaw. bu Umar ñëwee léegi Samba jóg. Mhm. ku ko jàngal. sàmba Ibrahima yenn saa yi mu ñëw téye technique ku ko jàngal. sàmba kon ñun weeru koor gi ñu doon woor dafa am lu ci doon jàngee yu bëri. dafa am lu ci doon jàngee yu bëri mbooleem xeetu jaamu yàlla yi ñu doon jaamu yi ñuy jaamoo yàlla. yëpp Mansour ñu ngi ko doon jàngee ci koor gi. Mhm. yëpp laa wax yëpp. Hmm. ñu ci doon jàngee julli. dañuy julli suñuy farata naafila fukki fan yu mujj yi ñu def xiyaamu leyli naafila kaamil <laughs> waaw Mansour guddi gu jot nga naafila ñeenti rakka <laughs> weer wi des fukki fan <laughs> nga fanaane di naafila ba fajar sa ñi ko mën kooku bu koor gi jàllee julli farata dana nekk di sa problème la nekk sa problème ah. waratul nekk sa problème sa problème loolu nga def ko ñaata at ñaata at nga nekk si. moo tax wóorkat yi dëgg dëgg dëgg julli du nekk seen problème parce que lu tax ñoom formation julli yàlla defaaleel na leen ko si biir weeru koor. mooy ah. benn. <laughs> ñaareel bi nga woor weeru koor ba mu jeex trent jours. xeetu yonent bi rek la ko yàlla ma sa jox. xeetu yonent bi kese. maam Ibrahima. alayhi salaatu wa salaam. kooram matul woon trente jours. maam Adama matul woon trente jours. yontu yàlla Moussa matul woon trente jours. Adama ayaamul bii di la doon woor. fukk ak ñeent fukk ak ñett fukk ak juróom. Moussa yàlla ni ko jox naa la tam xarit. mu koy woor xeetu yonent bi ñooy jox leen fanweeri fan waaye léegi Mansour fanweeri fan ku ko woor woor fukki fan ak ñeent fukki fan ak ñett fukki fan ak juróom loolu dañ la tëwati déedéet du nekk sa problème de xam nga du nekk sa problème du nekk sa problème woor chaque lundi ak chaque jeudi dana nekk sa problème waratula nekk sa problème de jeex na kon loolu day continuer loolu day continuer koor gi bis bu nekk nga téye sa kaamil alquran Mhm. jàng wala nga dem ci jàkka ji la jege soo amee jot déglu tafsir wala sax demoo ci jàkka yaa ngi sa palaas Hady Niass mhm. mi ngi tafsir mhm. ba ubbi sa rajo donte mënoo teewlu di xool téere bi yaa ngi déglu Serigne Hady yaa ngi déglu Oustaz Alioune Sall yaa ngi déglu Oustaz Taïb Socé yaa ngi déglu Cheikh Ahmed Tidiane Wade ca Tiwaawan ca ëttu sëñ Babacar Si yaa ngi déglu Zawiya Seydil Hadji Malick tafsir ba yaa ngi déglu yaa ngi déglu fi ñuy tafsiré ci réew mi yëpp pam Moustapha Gueye caaree kaw mhm. fépp yëpp yaa ngi fay déglu léegi yow weeru lëmm bis bu ne nga jàng alxuraan bis bu ne nga déglu tafsir alxuraan kooku su ñu waree est-ce que Mansour jàng alxuraan nekkati na sa problème waratala nekk sa problème sa problème déedéet ah muñ xoola muñ muñ muñ muñ muñ nga xam ni jaamu yàlla booy def soo muñul doo ko def jaamu yàlla yëpp il nga am muñ muñ muñ soog am di mën a jaamu yàlla weeru koor xoole ngay muñ suba ba xoole fajar ba timis doo lekk doo naan doo laal soxna si mm-hmm. weer kooku bu weer wi jàllee yow xanaa léegi mën a ti nga am muñ moom dootul sa problème waratul nekk sa problème jóge fii dem tiwaawan yendu tiwaawan ba ngoon jot doo lekk doo naan def say farata wàññeekuwaat ñibbisiwaat fii sa kër loolu di ko jambat dina la jaar nga jaar ay restaurant du la ko jëriñ mm-hmm. parce que legi am nga muñ ci xol bi dem sa tolu serigne yendu fa ba ngon jot tol ba nga wara yendu def fa la nga wara def ci sa doole wat ñew loolu dina nek ci yow problème muñ nga mm-hmm. ah nit wax la lu la nakari wala mu def la lu la nakari nga muñ ko loolu du nekk sa problème parce que jàng nga muñ ci weeru koor mhm. partager saraxe dimbale bokk sa alal mhm. xoolal koor gi mansour da ngay gis ku woor ba ngoon jot ku waxma la woor ba ngoon jot de woor ba koor gi jeex du jënd benn yoon suukar ndeysaan man ci jaamu yàlla yooyu yàlla boole na ma ci woor ba ngo ba koor jot te yor daara daara xoolal daara li suukar daara ja ni waaw li muy suukar par bis woor ba ngoon jot du jënd suuk woor ba koor gi jàll jëndoo benn yoon suukar te ñaanoo benn yoon suukar te yalwaani ngi am ci weer ñaanoo yalwaanoo jëndoo kon même yow mi ko doon jox yow Pape Makhtar mi nga xam ne nga doon toog ñu lay indil suukar mais ñu la doon indil yow jàngal nan la joxe. te yooyu da ngay joxe yow da war a joxe jàngal nan la comme mi ngi ñëw na dem. sëñ Mansour dafa doon wax ni alal. alal alal tuddul alal. am am la tudd. sëñ Mansour si borom daara ji. am am yàlla na yàlla yokk leeram am am la tudd am am ñu ko lan mooy am am. am am am am. am am ñu ne ko lan mooy am am mu ne am am mooy xoola suñ Mansour nee na cent mille day nekk fii ci tenq bi ci sa tenq cent mille fii yàllaay teg fii cent mille teg fi cinq cent mille teg fii un million cent mille cinq cent mille un million un million Pape Makhtar cent mille yi la yàlla jox fii nga xëy joxe sa dépense joxe say fare kër daara ba lépp mat yaa ngi dégg mhm. nga dese quatre vingt cinq mille wala soixante quinze mille francs mhm. benn waay ñëw jàmbat la aajub junni mhm. néegoo yëkkati junni def ca yàlla ni tëj nga cinq cent mille yi bunt bii cinq cent mille yi tëj nga ko waaye cent mille yi soo ci joxee dépense def ci say farata

mooy sëriñ bi ëppoon teraanga wala yàlla boole woon na ko ci sëriñ bi ëppoon teraanga fii ci kaw suuf li ma lay wax boo ko weddee nga laaj daam jóob meewaan sëriñam laaj ko ko xam na li may wax sëriñ boo xam ni loo lu mu xool moo daan joxe ba jeexal tàkk woo njabootam gi ko yàlla booleel di leen wax loo yor loo yor loo yor loo yor. ba tey nga jox ko mu joxe. ma na ma nettali benn doomam doomam doomu boppam li benn doomam. Mhm. mu woo ko joxe li mu yor joxe woon ba mu jeex takk mu ne ko abal ma li nga yor mais doom ji yëkkati. Eh, garaam mbubb bi di jël loxoom di dem ci poosu caaya ji. mu génne mu ne ko bàyyi ko bàyyi ko xaalis ku koy joxe doo ko def ci poosu tubay fi nga koy def ci poosu garaam. da lay jege da lay jege. <laughs> Mhm. da lay jege. Mhm. comme joxe bi. Mhm. joxe bi. joxe bi day tax nga am. ma joxe day tax nga am. Mhm. ku la dàq joxe. kooku mhm. lay gën a mën a am. la dàq joxe. moo lay gën a mën léegi nag koor gi Mansour jàngal la la joxe koor gi. kon gars yi bu ñàkk ñàkk gi ñuy jàmbat oustaz nañ joxe. Eh, ñoo ko teg seen bopp laa la wax kuy joxe du ñàkk Mansour képp koo xam ni yaa ngi joxe doo ñàkk. dedet noy ñàkke kuy joxe. kooku du ñàkk. mais soo jo soo joxe wala da nga ñàkk. ban ngëneel moo nekk ci joxe. wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu xana boobu doy na. yàlla nee na lu ngeen joxe. mu wuutalaat leen lu ëpp li ngeen joxe. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ولا واسع عليم يلا دينا شكو يدف تي جوخي يونو يالا تي جوخي يونو يالا يونو يالا سنه يونو يالا موي جوخي سي فرات كون افام دو جوخي رك دي ديدت دا فام جوخي يونو يالا بو جيلون 500 فرانك دافكا تا لامبجا دا نغا ياك ah foofu ah boo jëloon milliard def ko ci daara ji ci daara ji. Mhm. da ngaa joxe ci yàlla. Ah, kon affaire du génnee rek. déedéet tey ku jëloon mille milliards jëndee ko dund ak i ngànnaay ko Palestine def nga fi nga ko war def. Bob mooy joxe bi boobu mooy joxe. boobu mooy joxe bi ñax ni moom ngay jiital sa bàmmeel. sa bàmmeel waaye boo def ko ci góor jigéen ña nga. yàq nga kuy joxe nag dangay am da ngay tabe maanaam su maanaam tab tab ci xol lay nekk tab ci xol ngay gis koo xam ne xol bi mooy rëy ku mel ni Lamine Ngom sama waa ji xol baa rëy xol bi moo rëy lu nekk mën na la ko defal ci benn saa day joxe te xam na fu muy joxe xam xam xam fi muy joxe bu gàmmu jotee daayira yëpp mu woo leen may leen i ceeb may leen diwlin may leen suukar may leen may leen may leen may leen may leen joxe ay paasu gàmmu joxe ay loolu mooy tab te yàlla tax yow tamit Mansour léegi nag koor gi daf la war a jàngal loolu mm-hmm. bokk koor gi daf la ko war a jàngal mm-hmm. kon koor gu bu dañee nit ñi li leen war mooy continuer waat ci koor faf sax sang bu tedd bi ci Médine Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. waxoon ni ku woor weeru koor ba mu jeex mm-hmm. nga teg ci juróom benni fan ci weer wii di shawwaal juróom benni fan kese dafa mel ni danga woor sa diiru dund ah sa diiru dund Mansour ma tegal ci benn naafila buuñaa ma madame Sall Aminata Sall déglul madame Ndiaye Aminata Sall déglul jox la buuñaa bi ma tegal ci benn buuñaa muy mhm. benn naafila mhm. juróom ñetti rakka juróom ñetti rakka ci weer wi rek lañ koy def shawal oustaz juróom ñetti rakka oustaz ci weer wi rek lañ koy def lañ koy def bàyyil gars yi jël seen temps jël big mu jox ñu ko ndànk gaay yi pare leen ngeen enregistré ñiy noté nañ noté comme ci weer wi dong lañ koy def kese suñu rëccee dañuy xaara ci déwén déwén yàlla nañu ko yàlla fekkeloo waaye wóorul nañ ko noté léegi te def ko. bu kenn négligé nag. te boo ko defee incha allah. su ko yàlla nangoo sa yaram sa yaram. araam na safara. incha allah dégguma la de Moustapha Sylla la ngi envoyé message. su la ko yàlla nangulee naafila bi muy bëgg a joxe ci weeru shawal. di juróom-ñetti rakka. di ñeenti sëlmal. ñi ngay jàng ñëpp ko man waxaguma ko waaye ñëpp ko man ay bismillah oustaz ñun ñëpp ñun ni tek technicien yi yëpp ànd ak oustaz maxtaar mu jox ñu buuñaa tey bi soo ko defee sa yaram yaram wi yaram bi insha allah insha allah su ko yàlla nangoo sa yaram aram na safara teet teet boobu de xanaa rëy na ñaata waxtu nga koy def waxtu ko mën naa boo julli woon nii bu ma la ko waxee léegi nii ba pare sax su ma neexoon léegi nga taxaw léegi naa fi la ko. kon mën nga kaa def saa su nekk nii ci biir weer soo jullee tisbaar ba pare jumaa mën nga ko def. bismillah soo jullee timis ba pare mën nga ko def soo jullee gee ba pare mën nga ko def. Mhm. juróom-ñetti rakka la xoolal rakka bu nekk Mansour faatixa ngay jàng ba faatixa bi jeex. Mhm. nga jàng suuratul ikhlaasi. Mhm. muy xul uwallahu ahad. allahu samad mhm. lam yelit walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad nga jàng ko quinze fois fukki yoon ak juróom premier rakka loolu ngay def deuxième rakka nga def loolu taaye sëlmal ñëwaat si yeneen ñaari rakka yi nga jàngaat ko taaye sëlmal defaat ko si yeneen ñaari rakka yi taaye defaat ko ci yeneen ñaari rakka yi taaye sëlmal muy ñeenti sëlmal di juróom-ñetti rakka boo ko defee ci weeru shawwal wi insha allah su ko yàlla nangoo seeramaar na safara allahu akbar kon naafila baa ngoog di buuñaa ci gannaaw weeru koor wi jullit ñëpp nañ ko def mhm. man nag pam Makhtar damay wax ni lépp loo xam dañaan boo ko defee mucc ci safara te ma xool ko du bidaa du aada du xaram. man Pape Makhtar dama koy def. su ne lépp loo xam ne boo ko defee gudd fan. te ma xool ko du aada du bidaa. damay def. lépp loo xam ne dañuy wax ni soo ko defee am wér gi yaram. man Pape Makhtar damay def. Mhm. bu dul lu xaram. damay def. rawatina nag lu ñu wax ni boo ko defee rek dama àjjana moom. kooku moom Pape Makhtar du ko fal. oustaz ñu répété waat ko. waaw bala ñoo ubbil auditeurs yeeg auditrices yi eh, téléphone bi. Eh, téléphone bi ndax ñaan la ko nga xam ni ci weer wii rek lañ koy def. beneen bi ci des it mooy lim ci wax ci ay ngëneel kenn xamul nu doy. Mhm. te comme su ko yàlla nangoo. araam na sa yaram araam na safara. te loolu damay wax ni li nit di jaamu yàlla bokk na ci te ñi ci ëpp. ñi seen maqaamu rombul foofu mooy sa yaram yaramaram safara kon fa tabarakallahu dañuy teewluwaat oustaz Pape Makhtar man de ca laa toll yow ca nga toll ci jaamu yàlla pour bañ a dem safara dëgg dëgg su ma la waxee dëgg ci laa toll kon de ñun ñi jaamu yàlla pour dem aljana ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg su ma la waxee dëgg li nekk sama xol mhm. ca laa kon ñun say taalibe ñi nap na bi pour mat mas mat la as ndongo xaw ma fan lañ toll kon oustaz mhm. ñu bàyyiwaat la ak àdduna nga joxaat leen ñaan googu su ko defee eh, naafila yooyu ñu bàyyi ko xel parce que it weer wi moom eh, bala mu ñëw rëcc naafila yi bañ ñëw rëcc oustaz ñu nga nga benn benn la ko rek jox gaa yi nga ngëneel yi ñu ñu ñu jox leen naafila yi ñu ubbi téléphone yi nag ak auditeurs yi ak auditrices yi oustaz. Mansour naafila bii ma lay wax ci weeru shawaal bi rek lañ koy def shawaal weer wi. <laughs> naafile bi boo ko defee incha allah su la ko yàlla nangulee sa yaram xaraam na safara incha allah ci coobare yàlla suñu borom faatixa ngay jàng benn yoon suuratul ixlaas yi fukki yoon ak juróom faatixa naafile bi nii la mhm. soo ko defee ci weer wii nga koy def muy shawwal su la ko yàlla nangulee incha allah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 soo amee ñaari rakkaat taaye sëlmal mm-hmm. amaat ñaari rakkaat taaye sëlmal mm-hmm. amaat ñaari rakkaat taaye sëlmal mm-hmm. amaat ñaari muy juróom-ñetti rakkaat uh-huh. di ñeenti sëlmal soo ko defee ci weeru shawwal wii lañ koy def nag incha allah su la ko yàlla nangulee sa yaram xaram na safara yal nañu yàlla boole ci ña koy def amiin yaa rabbal aalamiin boole ñu ci ña nga xam ne buñ ko defee ba pare itam yàlla nangul leen ko amiin yaa rabbal aalamiin ci barke sayyidil wujuud wa alami shuhuud sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oustaz Mouhamadou Mansour jërëjëf oustaz imam alhaaj Pape Makhtar li nga indi moom ëpp ëppati na solo fa tabaarakallahu euh, soxna Aminata Sall madame Ndiaye mi ngi yóbbante ay nuyoo di la ziara. di ziara Moustapha Sylla frère am. Mhm. moom it di di sa frère. moom it mi ngi yóbbante ci moom nuyoo ak ziara bu baax a baax euh, Mouhamadou Lamine Ngom bi ngay tudd léegi borom xol bu rafet bi moom it fa tabarakallahu ñi ngi koy nuyu di ko ziara Serigne maa ngi lay ziara bu baax di jéggalu gëj a déggante gi mi ngi jaar foofu bàyyil xaji Maguène Ndiaye moom it ñu nuyu ko euh, Makhtar Dieng Ndiaye bu Safina ñëpp professeur Samba moom it mi ngi jaar ci suuf fa tabarakallahu Ousseynou bu al amin nekk fële ca Thiès moom mi ngi ànd ak ñun soxna ak Souad si nekk fële ca Tivaouane moom mi ngi ànd ak ñun ci Facebook bi soxna Koddu Diagne moom it mi ngi ànd ak ñun ci Facebook bi di yónnee ay nuyoo Haji Malick eh, Faye nekk fële ca Thiès wala fa Gandiaye bu daayiratul Muxtafina moom it mi ngi ànd ñun suñu bàyyi bopp bàyyi baaba warga moom it mi ngi jaar ci suuf di woote ci téléphone bi eh, ngir yàlla ak cofeel ngir yàlla ak xëy na bëgg intervenir ci émission bi bàyyi baaba ñu ngi laa ziar di la bëggee bu baax a baax oustaz ñu ngi kontaan ci eh, rawatina ci waxtaan wi waaye ñu ngi kontaan surtout ci ni nga indee ah, baytul muhaddis fële ca Palestine mm. ak taxawaay bi si jullit ñi war a am ak kenn ku si nekk gëdd ba dëkk ba am ba jàkka ji am paxawaay ba mu am ci lislaam ak niñ ko war a taxawoo parce que am na koo nga xam ne mu ngi ñu doon déglu waaye dafa jàpp ni rek moom xëy na comme fële la yoonam nekk si delloo si waat nga suñuy xel wan ni même su dee fële la war nañ na soutenir ci suñuy xol waaye war nañ leen a soutenir tamit ci ay ñaan mhm. yàlla na yàlla fay lay ñëw rawatina nag kado bu rëy bii nga xam ni xëy na naroon nañoo nelaw ci ñàkk a xam ba weer wi raw ñu jërëjëf yal na yàlla fay la yiw ba ñu ko indilee ñu nit ku ci yàlla nar a defal sens <laughs> doo ko négliger incha ku ci say yéene sa bopp sens yiw doo ko négliger parce que am na yàlla mun na laa yéene parce que yéene yéene bi ñu yàlla yéene moo tax mu indil ñu ko comme nii mu ñu ko indilee mm-hmm. waaye nag ku farlu moo koy jariñu mm-hmm. yéene yàlla farlu moo lay dimbali pour nga jëriñoo ko. Hadj Demba Ndiaye ñu nuyu ko ziar ko oustaz. bu baax di ko ziar suñu wëllëlee suñu xarit professeur Demba Ndiaye. sama boy la. di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex. incha allah incha allah fa tabarakallahu loolu ba dimanche fa tabarakallahu xaj sàmm foofu la ñuy jaar ak Mama Diop ah. eh, mi nga xam ne moom moo nekk ci technique bi ubbi téléphone yi ci 88 628 10 95 mooy bunt bi nga xam ni fa la ñuy jaar pour jokkoog oustaz Pape si la seen émission Miftahoul Houda ñu nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñun ci Facebook bi jéggalu leen bu baax a baax nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci 98 point 2 ak fépp fu ñu mën a nekk ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen jaar suñu bàyyi bopp bàyyi baaba war ka moom it ñu nuyu ko jaar ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla mu dolli ko tawfiix ak tey taysir dolli ko wér fa tabarakallahu 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum mbokk salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Haj Mansour labbayk Haj Pap Malik labbayk Pap Maxtaar man la Mansour Deme Oustaz Mouhamadou Mansour Deme am ci lu ma nekkoon léegi dama ñëw rek tombeek lii nga joxe nii kon nag man ci xaw ma ñeneen waaye pour man ci man nga xëy ndeysaan benn yoon fii man man sama jaamu yàlla yëpp li ngay wax moom bu bu affaire àjjana moom beneen mbir la. Ah. macha ah. allah ci safara rek. <laughs> comme joxe nga ko tey kay tey man nga xiyal macha allah. Haj yal na yàlla fay moom kay tey moom bu soobee yàlla balaa ñu naan ñaari fan ñetti dinaa ko def bu ma ko yoon bi bari benn bi moom bu soobee lañ ma ko luppe incha allahu taala amiin yaa rabbal aalamiin vraiment ñu ngi bég di kontaan nag yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla fay leen barkeelal leen amiin yaa rabbal aalamiin samiyanaa waadaanaa rek moo fi des waaye macha allah alhamdulilah li fi des nag di topp ñoo xam ne lu ñu buddi rek ñu naan ay bidaal ak lii xamuñ fuñ ko jëlee waaw nañ des ci yooyu rek bañ gis luñ ci am tey ak ëllëg yëpp. <laughs> loolu macha allah jërëjëf Hadj Mansour. nañ kontaan nañ ñun daal lu ñuy ñaan ñun sama jaamu yàlla man. bu ma dugg bu ma dugg safara rek man àjjana sax mais bu ma demee laara man kay <laughs> safara moom. trop tardé bu mu métti bu ñuy wax safara moom. Hadj Mansour man naa ci mucc rek li ci des yëpp nu mu yëbutee rek nañu demee rek. <laughs> alhamdulilah Hadj Mansour sama tey sama saafara macha allah. jërëjëf jërëjëf jazakumullah ndax xeer. Hadj Mansour jërëjëf jërëjëf Hadj Mansour. Oustaz nee na moom bu حاج منصور آه، حاج منصور ندم اجنبي على طول الامر وادراك المنى الحمد لله كون 88 لا 628 10 95 موي بومو جوكو بيغا خامني تي لا ني جار عندك استاذ فمختار سن ميشن مفتاح الهدى فتبارك الله 88 628 10 95 ني نوي باخ با سوني باي بوب باي بابا ورغا باي بابا ورغا نيوميت ني نوي كو زيار كو باخ الحاج داوود نجاي بو سيرن عبد العزيز سال امين momit ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax a baax nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun jaajëfal oustaz Sam Makhtar comme ni ko Hadj Mansour waxee Hadj Mansour oustaz oustaz maa ragal ne Hadj Mansour dafa bëgg a nax gars yi rek moom daal nee na affaire am moom mooy bu mu dem bu mu dem safara rek insha allah rabbi yàlla na yàlla defal la tawfiix ci kattanu yàlla ku ko def yàlla na ko yàlla nangu. dafa mel ni 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah kooku suñu bàyyi bopp la. bay baaba ah yàlla. dañuy doon ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal seen amiin yaa rabba alamin maa ngi nuyu Pape Moutar Sylla di ko gërëm. di ko sant. Mhm. Eh, yàlla na yàlla ko defal ko jàmm adduna ak laakira. amiin yaa rabba alamin parce que dafa am li ma keroog. su ma sëriñ wax ci moom. keroog bëggoon naa dugg fekk suma yaram wi dafa neexul mhm. waaye wax boobu dugg na suma xol ba ila yow mu di duma ko fàtte te sa sëriñ moo ko waxoon ci Pam Maxtaar suma sëriñ Cheikh Mohamed Yaraban koo xam ne bii du waxantu wallahi du waxantu lépp luma la wax rek dafay teg baaraam mhm. mu ngi déglu ci yàlla nee na yonante nee bi ko gërëmee Pape Moutar Sylla mhm. bu pare mu teg ci Pape Moutar Sylla bu bu ko bu le wala ma mhm. na noonu keroog mhm. kon kay xam na mbirum mbirum eh, mbirum Pape Moutar Sylla ndeysaan kon naka yow fi ngay wiiru moom da wiiru ku dëgër ah man de maa ngi ci ginnaawam maa ngi sa gannaaw ni mu nekkee gannaaw Thierno Hamidou Yoroban. alhamdulilah. nee naa la Thierno. bay baaba. naam. man man Pape Makhtar ak Mansour yëpp ñu ngi ci sa ginnaaw nga nekk ci ginnaaw Thierno rek dégg nga. déedéet mënul ne. <laughs> xam nga man toujours damay yàkkamti di julli damay julli sax defu baag yar saaliyaat. waaye ku yàkkamti def baag yar saaliyaat nag xam nga ne moo kooku du bu doon li nga feeñal nii du xalaat safara eh, yaram du. du gis safar. mais naam ma def noonu yow yaa ngi ci ginnaaw euh, Thierno Bachir. déedéet Bachir Ban. Basiru ban moom euh, euh, waaye waaye moom Basiru moo ma jàmb. Ah, moom di sëriñ la muy jàmb taalibe. Ceerno mu ne ma Basiru mooy sa sa ah. waaye dafa ma jàmb ma ne ko nag waaw baax na kon nag léegi man de fi ma nekk rek ngi ci gannaaw Ceerno rek. dëgg la waaw ah, man de man man maa ngi yow ànd du ma jaar ci Bachir. man kay léegi Basiru moom ci boppam dama ko romb rek maa ngi ci Ceerno rek. alhamdulilah. kon nag eh, kon nag ñu ngi ko ñaanal yàlla gudd fan ak liram yàlla na yàlla defal sutura amiin ya rabbal alamin yàlla na yàlla aar amiin ya rabbal alamin yàlla na yàlla teyal boppam amiin ya rabbal alamin xam nga yàlla ku mu tey du daanu déedéet kon nag maa ngi ñaan yàlla yàlla na teyal boppam eh, ci eh, Papa Moutar Sylla jërëjëf jërëjëf Baye jërëjëf def nii Eh, man de wax dëgg yàlla danaa nga ñaanal ma sax si béy la yow ma diin. incha allah amiin yaa rabbi. yal may jàmm defal suul maa ngi nuyu Thierno Hamidou Yaraban. Mhm. ah Baye Baba. jërëjëf mi ngi nuyu sëriñam Thierno Hamidou Yaraban moom it ñu ziar ko bu baax a baax. ñaan yi mu ñaan yëpp yal na ko yàlla nangu moom it mu dëgëral ko ndax wéy jur la woo xam ne bu ñuy encouragé la. way jur bu ñuy jàppale la waaye way jur bu ñu soutenir la saa su nekk yal na yàlla dolli ko wér ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam 88 628 10 95 mooy bunt bi nga xam ne moom la ñuy jokkoo ak fajati imam oustaz cheikh alhaaji Pape Makhtar ci seen émission Miftahul Huda te ñu doon waxtaane ñaar te bu ci ëpp solo nan la ñuy taxawoo na kenn nan la kenn ku ci nekk taxawoo war a taxawee soutenir euh, Palestine ci ñaan bu ko kenn ken kenn ku nek fa nga nek bul xeb ben allahumma bu yekati ñaanal julitu yàlla yi nga xamni ño nek Palestine bu kenn xeb manifestation bi ñuy wote nga dem taxaw fa def ben acte ngir lan ngir soutenir say mbokk julit ñu nek Palestine parce que am na ñu jóge ci rew mi dem ba ci fu nek pour soutenir ay lan ño xamni sax du ñu ay julit ño xamni duñ ay julit ndax lan ndax ben intérêt àdduna am na ko xam ne mi ngi soutenir ay nit ñoo nga xam ne duñu sax ay sénégalais ñu sax ay jullit ndax lan mu leen di soutenir ndax lan ndax ne intérêt bu nga xam ne mi ngi jëli soit ci moom waaye bii nag benn intérêt rek la parce que ñun ak ñoom ñoo bokk laa ilaha illallah muhammad rasulullah loolu nag dafa jaaju kon ku nekk mu bay si def ci lam ca war a def amul kenn ku ci am ku ci amul lum ca war a def jullit bu ci nekk moo xam koo mën a doon ak foo mën a nekk am nga loo mën a soutenir Palestine Oustaz Pape Makhtar wax na ko léegi ba ci benn allahuma booy yëkkati ngir soutenir leen ko bu ko kenn xeeb beneen bi mooy ñaan gi moo mooy naafila gi nga xam ne moom la joxe moom Oustaz Pape Makhtar wax ni ku ko def ya soo ko yàlla nangul sa yaram na safara te bari na lu ñuy sonne loo xam ne benn yitte rek lañ ci am naafila guddi eh, woor weeru koor yi am na koo xam ni comme ni nga ko waxee nii la nag am na koo xam ni lenn rek la ci bëgg mooy yàlla musal ko ci safara yóbbu ko xaj ma Mansour wax na ko léegi mu ni moom na ko yàlla may rek mu na mucc ci safara leneen lu ci des garaawul moom sax bañul rax laa faaye déedéet ñun ñëpp nañu ànd ak dem dëkk ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla boole defal yàlla boole ñu si ñam yu teralee ñu gis jëm moom ju tedd ja parce que ñoom ustaas yi ñooñu jàngal ni am na lu dàq dem aljana dem aljana li muy neex neex am na lu ko dàq dem aljana dem aljana li muy neex neex neex mam am na lu ko dàq dem dem dem bañ a dem aljana bañ dem aljana li muy metti metti metti am na lu dàq bañ a dem safara حجم صرنا احنا قصق موي الاحراف تي ياغ ياغ دانيو دلوات جمال جانا غيناو بان لين سانغي راخس لين يالا نكو يالا نسي ديغ دوي جمال جانا امنو لوكو داق ني نو لان مو داق جمال جانا موني غيس جيمو يالا سبحانه وتعالى غا بوك تي ني يالا دي تيرالي ني غيس جيمم جو تيد جا باسكو كو ديم الجانا رك غيس جيمو يالا سبحانه وتعالى بير الجانا يي ما اي ايتاب dafa am ay escalier ay appartement la ay niveau la da ngay da da ngay gis ñu ni la euh, hôtel bi euh, deux étoiles trois étoiles quatre étoiles étoile bu si nekk jàppal ni moo gën a neex ba sept étoiles aljana tamit noonu la ki dugg rek mi ngi seree de souci bi am na am na am na fu mu yem waaye am na lu mu lu mu doon jote ci bànneex am na koo xam ne mi ngi jëm feneen am na ñii ma tur yi ñëwee noonu la àjjana yi appartement yi di gën a neexante kon fa tabarakallahu yàlla nañu ko yàlla boole defal kon julli gaa ngi noonu ñun ñëpp nañ ko bàyyi xel juróom ñetti rakka la ñaar yoo def sëlmal benn bu si nekk dangay def fatiha def fukki lixlaas ak juróom yàlla nañu ko yàlla kattanal yàlla nañu yàlla boole ci ñu muy wër wërsëgale ñu mën ko taxaw suñ ko taxawoo yàlla na ñu yàlla boole ci ñim koy nangul ndax ku ko yàlla nangul rek sa yaram safara kon fa tabarakallahu ñu bàyyi ko xel ñu bàyyi ko xel gis nga li ñuy daw nii mu jaral ñu lu ne am na ko nga xam ni tey mam ma job su wàccee léegi sàkku sam su duggee këram rek su meeku na sol équipement om dem terrain ba 19 heures amaana sax suñuy noddu timis fa la koy fekk waa loolu <laughs> juróom-ñetti sàkka yi lan la lay fànqal professeur Demba Ndiaye su xasee wàcc rek ñekk këram su paree jama ma nga jaaxaan ñu tegal ko attaaye eh, juróom-ñetti rakka yi xaj na fa pause bu ndaw bi nga am muy une heure de temps soo jullee tisbaar ba pare waaye xaj na ca dawal bul toog sax di négliger naan may bàyyi ba suba may bàyyi ba gannaaw suba gis nga seytaane actuellement nii nag tey lay jóg profito pour lan li oustaz Pape Mokhtar si la wax auditeurs yeeg auditrices yeeg ñu koy suivre ci internet bi mu mu ni ah xaaruma profito ba ba ba ba ba yàq seen xel ak seen xol indi leen occupation boo xam duñ ko tal ndax moom bëggul ko dem aljana dafa taxawoon xas ak yàlla engagé wu signé contrat ni naa fexe yàlla sa mboolem ba dëngal sa jaamu yàlla yëpp yàlla ni nga di mën ngaa am ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo désorienté ci siraatal mustaqim waaye du ñëpp nag ilaa ibadina salihin am na gaa yoo xam ne mënoo ci ñoom dara ak loo mën a jéem ci ñoom yàlla ñu si yàlla boole kon seytaane jóg na oustaz fa Maxtaar indi na benn xéewal waaye seytaane ngi taxaw nag dina ne dinaa fexe ba Demba Ndiaye du ko def dinaa fexe ba Mansour Dem du ko def dinaa fexe ba Aminata Sall du ko def dinaa fexe ba kii du ko def dinaa fexe ba diw du ko def waaye yow yaay engagé wu gis nga nit ki lu mu toll tàyyeel ko naan damay xaar xaar na ni bërët rek jóg na xam ne seytaane moo ko koy tere parce que su bëggee def lu safaan seytaane moo koy bëmax pour mu gaaw waaye su bëggee def lu baax. mooy ñëw taxaw di ko indil ay occupation di ko indil ay xalaat yenn saa yi mu indil ko sax gëmmentu yenn saa yi mu indil ko waxtaan débat président bi nii kii nii match bi nii ba mu fàtte ni moom juróom-ñetti rakka yi mooy sauvetage am ëllëg su ko defee ñu bàyyi ko xel góor góorlu ci te xam ni nag noon bi kenn ku ci nekk nga xam ni noon nga àndal boo nga xam lenn rek moy mission wam moy fexe ba lépp lo nar a def lu bax mu fexe ba jaxase jaxase la yu was wisu fi sidurin nas day fexe ba jaxase la sa bir xol sa bir xel ba li lu bax li nga wara def nga négliger ko wala so démé ba résister diko def sax mo fexe ba yakal lako ba do ko defé ni nga ko war a mu andi la ci bir ay yak yak ba xañ la yiw wa waa nga xam ne moo ci war a nekk yal nañu yàlla defal dégg ak topp may ñu kàttan mën a dimbali ko may ñu kàttan guñ ko mën yeggalee ak suñu sago ba xéewal yii ak ngëneel yii ñëw gis nga yàlla ñëpp la yéene aljana seytaane yéenewul kenn aljana waaye yàlla nag su la yéenee aljana ba pare la Oustaz Makhtar Sylla di wax moom moo ci nekk mën na laa wërsëgale jox la dépense jox la euh, jongoma ju la ko toggal jox la marché boo mën a nduggee ji jox la fourne gaz nga togg ba yekk ba teg loolu la sa soxna mënal mooy nga jox ko dépense mu nduggali la mooy nga jàpp sa rajo jàpp Miftaahul Huda am nga dépense déglu oustad Maxtaar moom mi jàngi gëstu li yonent bi yi baax yëpp mu ñëw jox la ko soxna si dem na marché ndugg na togg na ba yàkkar tegal la mën naa ci bu sax sexal la mooy ni oustaz Pape maxtaar di def wax la ko nanka nankal ko pour nga mën a enregistrer waaye ci bu sex nag sàqami wanaasu kenn du ko defal kenn kenn ku nekk yaa koy defal sa bopp kon oustaz Pape Makhtar wax nañu lan moo ñu mën a sauver adduna ak àllaaxira ñu jëfee ko nag yàlla ñu yàlla dajeeg ngëneel googu su ko defee ñu bàyyi ko xel ndokkeelaat ñëpp rek ziyaaraat ñëpp bàllu ak ñëpp fa tabaarakallahu ñaan yàlla yàlla sàmm suñu réew mi ba mbooloom ñi nga xam ni ñi ngi taxaw pour défendre intérêt réew mi waaye pour défendre dine l'islam yàlla dooleel leen waaye képp ko nga xam ni yaa ngi jug taxaw pour safaane wala nga dugal lenn lu yàq diine jikko yàlla bu la yàlla dooleel ñun nag yooyu ñaar yooyu war nañ ko mën a xam ñi ñëw pour defar naka lañ leen di dooleelee ak ki ñëw pour yàq naka lañ koy dimbali naka ñaar yooyu rek moo fi am euh, waa ànd a sàmm jikko yi ñi ngi fi taxaw di woote manifestation la 23 incha allahu rabbi fii ci place de l'Obélisque ñun ñëpp nañu taxaw te xam ne ñoom it la ñuy xeex du seen bopp jullit ñi la ñuy xeexal réew mi lañuy ñuy xeexal ndax suñu ñàkkee fayda nooy yaafuus bàyyi nit ñi def lu leen neex ba góor jigéen ñi installé wu suñu réew ni ñu ko bëggee donte ñu ngi ci biir réew mi waaye ñu toog fi am fi doole ni ñu ko bëggee na nañ ñun ñëpp woo suñu toros kànge ndax suñu njabootu ëllëg yi ñëw te ki installégul ki toogagul di yàq bis bu toogee ba yilif lépp du yàq waaye day tasaare loolu nag nañ ko bàyyi xel ki toogagul esteléegul di yàq gan gi ñëw esteléegul toogagul di yàq bis bu ñëwee ba occuper réew mi fañ jëm ak moom kenn xamu ko kon loolu nag ñun ñëpp dañ ko war a bàyyi xel kenn ku ci nekk am nga lu la ci war ñun ñëpp nañu taxaw nañu taxaw bu kenn ni bokkuma ci déedéet liy sàmm jikko yi liy sàmm jikko yi ci réew mi am na ñu taxaw porter combat bi mais bu kenn ni bokkuma ci na ñun ñëpp engagé wu dugg ci xeex bi nga xam ni mooy xeexu sàmm jikko yi te mu commencé ci waajur yi ci kër yi parce que kenn ku ci nekk nag am nga ci responsabilité na commencé ci waajur yi ci kër yi commencé ci sëriñ yeeg professeurs yi ci école yi waaye commencé ci réew mi ak ñi ngànk réew mi ci ñu sàmm jikkoy réew mi ñu sàmm jikko yi yar njaboot gi ci diine moo tax su ñu taxawee ni dañuy ànd sàmm jikko yi woote la vingt trois incha allah fii ci place de l'Obélisque ñëpp a leen ca war a fekki soutenir leen duñ leen ca fekki sax de dañuy dañuy ànd ak ñoom parce que ñoom lañuy woote moomuñu ko askan wi la ñu bëgg a sauver donte nag lu nekk dafay am ñu jug pour porte combat bi mais combat boobu financièrement ñun dañ see war a jàpp. physiquement dañ cee war a jàpp moralement dañ cee war a jàpp kon ñun ñu taxaw ànd sàmm jikko koy ndax li ñuy xeex muy góor jigéen ak yeneen ya ca aju bañ a law wala am doole bi mu am ci réew mi donte ñu ngi fi damay wax ni ñun ñëpp war a taxaw pour mu jeex fi waxuma sax mu des fi de waxuma sax ñu am fi doole waaye mu jeex fi takk ba góor jigéen muy génnati dootoo mu nangoo làq dootoo nangoo feeñ am na ay jamono ku ñu waxee góor jigéen dañ naan fan la am waaye suñu demee nag ba ñu nangoo wanewu ci télévision yi ci média bi wa nangoo wanewu génn di dawal seen i kat-kat ñun ñoo leen dooleel dañ leen a dooleel kon loolu nag su amee ñu taxaw pour xeex combat boobu te xeex boobu xeexu ñëpp la damay wax ni ku ni man sama njaboot bokk si bul xaaral say sët xamoo parce que suñ ko dooleelee say sët a ngi ci ñëw xamoo ci lan lañ jëm moo tax nañ ko arrêté léegi samedi la incha allahu rabbi di ëllëg di fële sa place de l'obélisque le 23 ñun ñëpp nañu génn ànd ci ak ñoom jàppale leen taxawu leen taxawu leen ci bépp anam Oustapha wax na waxtaar wax na ko sànq ci dimbali yàlla ak financer yàlla ak jàppale yàlla ci kombaawam li ci la bokk taxaw ar daara ji taxaw ar jikko yi na ñëpp jóg mu nekk suñu combat incha allahu rabbi ba appel bi ñu woote na àdduna bépp xam ne ñun jullitu Sénégal ànd ñu si tey ànd ñu si suba ànd ñu si gannaaw suba te duñ ci mës a ànd loolu nag ñun ñëpp ñoo ko moom na ñëpp taxaw incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla 88 628 10 95 dafa mel ni temps bi ñu am mi ngi mi ngi mi ngi ci buntu jeex oustaz Pa Makhtar oustaz ñu bàyyi la rek nga nga nga nga nga collecturé incha allahu rabbi waaye daal ñu bàyyiloo xel ni réew mi moom jikko yeeg yëpp dañ ko war a sàmm Oustaz incha allah Oustaz Mansour wax nga léegi aar jikko yi ak sàmm jikko yi mhm. ñu ngi préparer benn marche incha allah pour manifestation mhm. pour ñu ñëpp ñu àndandoo taxaw mhm. ndax xeex li ñu bëgg a def ci suñu réew. muy mhm. wàllu góor jigéen. Mhm. góor jigéen xamoon li ci yonent bi wax ak li ci yàlla wax tur wi sax xamoon léegi la ñuy tudd góor jigéen góor jigéen ci rajo yi. bu njëkk kenn ñemewul tudd kenn ñemewul wax góor jigéen. Mhm. da nga dégg ñu naan borom ñaari tur yi rek. boroom ñaari tur yi ndax booba réew mi set na set goo xam ni. tur wi sax wax ko ci biir réew mi déli la. déli la woon. ndax setaayu réew mi ndax setaayu réew mi. tey nag ñeme nañ ko. tey nag ñeme nañu wax tur wi ban naan am na fi ban naan dañoo war a am seeni droit di séyanteeg di takkanteeg génn ci mbedd mi war wane seen bopp. loolu nag taxawu aar jukko yi. te loolu kenn ku nekk war nga aar si jukko. Mhm. gis nga kuy jullit rek mbooloo moom war nga ci bokk. kuy jullit. ah kuy julli rek war nga ci kon le vingt trois mhm. muy marche bi du ma ñooñu ñun ñun julli ñëpp la le pour manifestation boo xam ñun ñëpp dañuy ni moom du samp suñum réew lii du samp suñum réew te kenn ku la war kenn ku la war kenn ku la war ci physiquement moralement financièrement. ci lépp indil sa jëmm indil sa alal indil sa xam-xam indil sa xalaat kilifa yi yàlla dénk réew mi itam nañ ñu ci dimbale. yàlla dénk nguur gi nañ ñi ci dimbale loolu daal bëgguñu ko ci suñu réew te incha allah ñu ñëpp daañu ci def taxawaay ba loolu du fi am incha allah ci kàttanu yàlla ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di jox ñëpp daje incha allah ajuma bii di ñëw aleykum ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نون لك وحي موم أستاذ فمختار سيلا نون نكوي ساكو تي فتوارك الله ñaanal لك yalla yalla deugural لك sam ko parce que day mbekté la نيو ci ñun mbégte la saa su nekk si ñun ñu koy déglu ndax heure ñu ko dégloo am lu dool lekk si suñu wàllu diine am nañu war a lekk si wàllu si suñu wàllu yàlla am nañu dimbaliwaat si ñu toogaayee ko si si wàllu àdduna yàlla na yàlla sàmm la te dool la tawfiix ak taysiir andi teraanga yi ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jajeufal hajj mamou job mi nga xamni mo nekkon ci technique bi ak ñom hajj Samba jajeufal mbolam auditeur ak auditrice bu andon ak ñun ci 98.2 jox leen rendez-vous aljuma ji di ñëw insha allah rabbi même heure même fréquence alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh